من الحق جاه الحق خذ الحق بصدق بحق المبين الله يا لي من الصدق màggalu Cuub Jolof édition amal nañ ko ci gaaw bi fukki fan ak ñett ci weeru janvier di bis bi ñuy fàttalikoo ak barkeeloo ci juróomi ati Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul def ci dëkkëb cosaan bi bile màggal gi nag ci taxawaayu waa kër Serigne Mbacke màddina fasantikoo ci fédération Islaahu Daarayni màggal nañ ko ci anam yu yaatu bokk na ca yooyee nag bërëb bi ñu nekk fi ngeen di gis moo di exposition bi di bërëb boo xam ne ni commission culturelle et communication bi aju ci Islaahu Daarayni ñu ngi koy amal at mu jot ngir mën a tasaare ak a yaatal lenn ci taarixu bërëb bi rawatina nag sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mi nga xam ne nii moo fi féete woon ci njiitu commission boobu koy saytu amal nañu ubbi tëgg ci yor yoru màggal gilee ren nag Serigne Cheikh ñu yaataloon jotaay bi wax ne Thiène dëkkub Serigne Touba la bu nekk ci loxoy Serigne Mbacké Madina bari lool ñu fi amee ay cër ñu ne woon nag li ñuy wax exposition bi nga xam ne ci lañu xamlee lan mooy ceen ak mag ñu baax ñu fi jaaroon ñu waxoon ne exposition bi ñu def ren dañ koy tuddee Serigne Mor Absa Lo mi nga xam ne xasida gii gone yi doon jàng léegi bi ko Serigne Touba bindee fii moom la ko joxoon na ko wax na ko woon mag ñi ñu tuddee woon ko ko àggee ko ca xalifaam ba ka ñu wax Serigne Saliou mu yabal fa délégation bu am solo boo xam ne Serigne Fallou lay moo ko jiite mi ngi noonu toog di jiital ci nuyoo bi sëñ Mamadou Lamine Baara ak sëñ Cheikh Mbacké ak ñu ñu ko àndal ñëpp ah, di leen sant ci jotaay bi di sant suñu borom bi nga xam ni moo ñu may ñu teewaat ren daaw biñ fi dajeet ñaanoon nañu ko may nañ ñu teewaat fi ren kon ñu ngi koy sant bu baax di ñaan ñu mayaat ñu ñu teel teewaat fi déwén ah, ni ko Bassirou waxee ah, fédération bi bi saytu màggal gi ah, ñoo taxawal exposition bi tudde ko sëñ Mor Absa Lo li nga xam ne ni ko Bassirou waxee moom la sëñ Touba joxoon bind moomu minal xaq mu woon ko bokki taalibe yi kon ñooñu ñu leen di sant ci teewaay bi ñu fi teew nangu li ñu leen eh, joxe parrainage bi ah di sant suñu mbokk taalibe yi fi nekk yëpp ah cant gi nag ci turu fédération bi dañ ciy jiital sëñ Cheikh Mbacke gaynde bi nga xam ni mooy président d'honneur fédération bi ak soxna maam am mi jiite soxna yi kon suñu kàddu ci turam lañ koy jël di sant mbooloo mi fi teew ñëpp di ñaan suñu borom bi mu may nu ñu teewaat fi déwén ah nii ñu doxalee exposition bi ren mel na ni am na coppite gu ci am daaw melu woon nii bu ñu seetloo daaw ah amoon na ay yu ci manqué woon waaye ren yàlla def na nii ñu ko taxawale bu ñu fi yàlla bàyyeet dañuy bëgg mu yaatuwaat gën a yaatu maanaam ñu seet ñeneen ñu koy tuddee ñi nga xam ne nekkoon nañu sëñ bi fii ci Thiéyène ah ñu tàmbalee ko ci sa sëñ Mor sa waaye am na ñeneen ñoo xam ni bu ñu fi yàlla bàyyee danañ leen tudde bis bi waaye nag ñu ngi sant ñëpp gis nañu taxawaay yi gis nañu commission ni ci taxawee Bassirou ni mu ci taxawee ak mbooloo ni ko àndal ñu koy sant di ko gërëm di sant waa mbokk bi mbokk mbooloo bi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi exposition bi nag ñu àll di koy amal ngir yombalal ñëpp ñi nga xam ne ni dañuy gëstu ci taarixu Serigne tubaa Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak ku nekkinam fii li ci ci Thièyène Jolof tax na nag ren ji ñu daal di koy dippee kenn ci mag ñi di Serigne Mor Absa Lo ak njabootam ginnaaw bi ñu teewee ubbite gi. yëkkati nañu ay kàddu di sant ak a gërëm waaye di gën a soññe bu baax a baax ci bërëb bu tedd bi lee asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu julli fi teew yëpp di nuyu mbokk kilifa yëpp si turu sëriñ Saawuloo mi xam ne mooy xalifa sëriñ Mor Absa yabal ñu fi ñëw teewal ko fii si liggéey bu rëy bii nga xam ne den koo defal lislaam mu boole ma ak doomam sëriñ Lo ak sëriñ Moustapha Fall ak sëriñ Fallou sëriñ Xaadim Fay ak sëriñ Modou Fay ak sëriñ Dame ñu ñëw nag fekk fiit it suñu mbokk mu bokk moo xam ne muy sëñ Baara Mbàkke mi nga xam ne moo fekkoog sëriñ bi nekkal ñu fi ndax si njabootu sëriñ Mor Absa la bokk ndax ma sëriñ Mor Absa mooy waajuru maamam kon bu ñu jógee njaareem ñëw fii teew fi dañ koy boole waale si délégation bi ndax moom moo na fi nekkal daa mel ne lii ñu def moom lu yàgg la loo xam ne mu ngi suuxatu ndax moom mi ak nekkam si dëkk bi moo fi taxawaay bi sëñ Mor Absa rek kon ñu ngi jëlee nuyoo bi di ko jaarale si maam Cheikh mi di ko jaarale sëñ Mba sëñ Baara mi nga xam ne moo fi nekkal sëñ Mor Absa di nuyu it mbooleem njabootu suñ mbàkk Madina gépp di nuyu mbooleem njabootu sëñ gépp di nuyu mbooleem njabootu maam di lay nuyu ci turu Serigne Saliou Lo di nuyu sëñ Bassirou mi nga xam ne moo jiite liggéey bi jóge woon fii ànd ak i bokkam ñëw njaareem leeral sëñ Saliou liggéey bi liggéey bi sëñ bi sant si bu baax a baax am si mbégte bu baax a baax ndax lenn lu tudd sëñ Touba di si tudd sëñ Maab sax loolu moom su ko déggee loolu rek moo doon ab liggéeyam daa mel ne dëkk bi moom. dëkkub sëñ Mor Absa la ndax dëkk bi xam nañ ne si histoire si Abdou Lahad Mbacke ginnaaw bi ko sëñ Touba moomee si Abdou Lahad moo ko jox sëñ Mbacke Madina sëñ Mbacke Madina yilif dëkk bi te sëñ Mbacke Madina mooy ndaam te ndaam mooy sëñ Mor Absa kon dëkk bi dëkkub sëñ Touba la dëkkub sëñ la dëkk bi nag mu bari ay jagle yu bare bari si yoonu murit ngir liggéey bi fi sëñ Touba liggéey ak lim fi jaamu boroomam xëy na. xataay bi tax mën koo wax waaye xasida yi ñu doon jàng rek moom mi la yi moom rek la muy leeral tuuti rek jox suñu kilifa ci des mooy xam nga sëriñ bi bu mu jógee gànnaar di ñëw ci yéen sëñ Maab si la waxoon mu wol ko maam Thierno mu fekk ko ndar mu jox ko digalal nga ñëw fii si ci Jolof ci Ceyeen sanc fi kër sanc fi ñaari kër génn bu mu tudd ko Daaru Rahmaan génn bu mu tudd Daaru Xuddoos kër googu nga xam ne nag moom la santoon fii bi sëñ Tuubaa ñëwee ba sañ ci kër gi si la bind xasida mu ne la àq jàll àq dëppoo beneen at bu si Abdoulaye Mbacke borom dër bi ndax si Abdoulaye Mbacke borom dër bi kër gi ñuy wax Daaru Rahman fi la gën a àdduna moo tax dëkkam bi mu tudd ko Daaru Rahman bi sëñ Tuubaa sañcee dëkk bi nag bind xasida mu ne la àq dafa woo maam ci yoon Ibra Faati ba mu ñëw mu ne ko xasida gi dama bëgg fekk maam Thierno bi mu ñëwee dafa ànd ak sëñ Mor Assa dafa woo maam Thierno ak boo ko toog mu wax maam Thierno ne ko xasida gi dama bëgg nga ko fere yi ñu gis ko te ki koy fere yi na nekk si biir kër gi fere yëpp génn si biti mu nekk si lu sori kaw ba ñëpp mën koo gis ndax jógoon naa saa borom si képp ku gis xasida gi suñu borom danaa jox ak texe boo xam ne ak texe bu si topp sëñ Mor sëñ maam Thierno wax sëñ Tuubaa naka Mor Assa mii de mën na ko na ko àkk ah saa naka def sëñ Mor Assa ànd ak maam Thierno ñëw si biir si biir kër gi Seydina Absa dugg si biir yéeg si nu sori kaw mbooloo ñëpp génn si biti mu won leen xasida yi mu mun a làq ga Sëñ Tuubaa njëkk a bind ban ko xoolee ba ñëpp gis ko maam kenn àndaat ak sëñ Mor Sëñ Tuubaa daanaka Mbàkke de yi nekk gis nañ ko mu ne ko akasaay jugee naa saa borom ba xasida gi ma bind képp gis suñu borom dana la may texe boo texe xam ne ak texe du si toppati daa di fab xasida gi am fu sëñ Mor Absa la xasida gi nag jël ko barkeeloo ko kon xasida bi nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa ñëkk a bind muy mu ne la àq nga xam ne mu ne la àq boo mën si àdduna sa xasida boobu ñu la jógee si lañ ko sottee mu ne la àq boobu tey ñu ngi si njabootu suñu raf sa yaakaar naa suñu Basiru mi def na délégation dem ndaam Busra siyaare ji mu ne la àq boobu kon loolu lu Sëñ Tuubaa def leen ak jagleel la sëñ Mor si dëkk bi kon bu ñëwee si dëkk bi sëñ Mor sa amoon ndigalal woo maam Cooro mu jox ko ndigal mu sañ ci dëkk bi Sëñ Tuubaa bind ak xasida na ko des texe jox ko sëñ sëñ Mor sëñ Mor Assa ko taalib yi mu fa barke jox ko sëñ Mor Assa la ko barkeeloo ko kon bu na amee ab bis fii si Thièyène tudd sëñ Mor Assa loolu la ma leen waxoon sa kër sëñ Mbàkke Madina ñu leen yéen sosu leen da ngeen a sof waaye lii mooy ak sof kon sëñ Saliou Wade si gàttal mu ngi nuyu njabootu sëñ Touba gi fi teew yëpp <coughs> di sant waa commission bi nga xam ne ñoo taxawal lii di leen gërëm di sant di ñaan suñu borom guddal seen fan. doole seen wér ba yéene gi ngeen am si liggéeyal sëñ tubaa ngeen liggéey ko lu kawe njortam. ci yéen Jolof dëkkub cosaan dëkkub sëriñ tubaa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim bokkoon ci mag ñi nga xam ne ni nekkoon nañoo moom fii maam Thierno Birahim Mbacke waajuram soxna Faati Issa Diop fii lañu ko denc. waaye itam Cheikh Issa Diène bokkoon ci kàngam yi toppoon sëriñ Tuubaa Cheikhul Xaadim jeexitalam fii ci Thièyène taarix dootu ko fàtte bokk na ci loolu sax waajuram. di soxna Marema jóg fii leen ko denc lépp ci taxawaay ak ndigalu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul seenub teewaay ci exposition bi ràññeeku woon na lool. fii taw ngi leen di nuyu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu ci turu ak Cheikh Abdou Latif Diène nga xamante ne mooy xalifa Cheikh Rza jenn ci kaw suuf. ak mboolem rakam yam fa bokk nekk muy Serigne Cheikh Abdou Alim ak Serigne Abdou Salam ak soxna May seen jigéen ba fa nekk ak mboolem seeti Cheikh Issa yëpp ñu ngi leen di nuyu ci ci ñi naandal muy ki ci jiitu muy Serigne Abibou Diagne mii di sëtu sëñ Sidi Muxtaar ak Serigne Baara Diagne mi nga xam ne mooy jëwriñ ak mbokki taalibe yi ñu ko àndal yëpp ñu ngi jiital suñu waajur wu tedd wi ci biir kër gi muy sëñ seex Mbacke Madina di ko ñaanal saa borom mu yàgg fi lool ndax moom de yokk na liggéeyu sëñ Mbacke Madina yokk na liggéeyu sëñ ñun ñu ko ànd ak moom mën nañ ci seere ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax mu yàgg fi di jaaral nuyoo bi ci sëñ Mahamadou Lamine mii ko fi teewal ak sëñ Cheikh Mbacke mii fi teewal ak suñ mbokk mi jóge njaareem ci suñ waajur wu tedd wee di sëñ Mor Absa ñu ngi rafetlu jotaay bu baax ñun daanaka amuñu fi woon kàddu dañoo waroon a ñëw rek xool ndax waa kër sëñ Mor Absa bu fu ñu teew rek ñu ko mbokk mi waxee waa kër Cheikh Sadiane teew na fi ndax ñoom ñaar suñ Touba da leen boole woon boole bu yàgg a yàgg ba tax na waa ko sëñ Mor Absa bu ñu fi teewee rek ñun mën nañu ñu yóbbaale ñun nag li ñu gën a boole ci màggal gi ak dëkk bi mooy waajuru Cheikh Issa Diène kuy soxna Mariama Diop Sëriñ Touba moo ko laajoon bi mu fi ñëwee 1907 laajoon ko Cheikh Issa ba 1912 ci la ko Cheikh Issa indi mu wàcc fi liggéey fii ci këru Daaru Xudóos gi Sëriñ Touba jullee ko denc ko fi Sëriñ Issa yi daanu fi ñëw lu bare bari di fi taseeg mag ñu bare bare bari pour bii nekk ci dëkk bi nga xamante ni mi nga kër sëñ Cheikh Sarr gi Cheikh Issa ko defar ci loxol boppam amoon na it ak siyaan goo xam ne siyaan moom daa bokkul teen ndax day sakk gasaloon na fi sëñ bi ak siyaan goo xam ne ak yoor yoor la fi ñëw sëñ bi xamal ko ni ko ndox dafa manqué ci dëkk bi Cheikh Issa ànd ak taalibe bu ñuy wax sëñ Bara Fall ak sëñ Mor Awa Thiam gasal nañ ko ak siyaan ba siyaan gi keroog bu ñu bënnee wax nañu sëñ Touba ndox moomu ci bis boobu ci lañ jàppe tisbaar suñ mbokk yi jóge njaareem it comme ni ko mbokk ñu waxee ñaari kër yooyu muy kër sëñ Mor ab sa kër ñoom ñaar dajawaat gi fi daje moom lu bare bare dajee feeñ ndax ñoom ñaar dañ doon kenn rek lañ woon kon nag bu ñëwee fekk leen fi daanaka ni ma leen ko waxee rek ñun moom kàddu gi bu ma teeloon a xam loolu damay bàyyi rek li ma koy wax moom ma wax ko mu yóbbaale ko ndax ñu ñaan ci barke borom Touba barke fi tëdd muy soxna Fatou Isa ak soxna Mariama barkeb sëñ Mor Absa barkeb Cheikh Sa Diène barkeb sëñ Mbacke Mad mi nga xamante ne moom sëñ Blaat tegoon ci dëkk bi ci loxoom ñu a teewe màggal gi yàgg ko ànd ak ñoom ba lépp luy fi jàng ci alfaan wala xasida saa borom sopp ko yiw lépp mu delluwaat Cheikh Bamba Xaadimu Rasuul yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Serigne Cheikh Ngaye Mbacke teewalan fa Serigne Cheikh Mbacke Madina di xalifaab sëriñ Mbacke Madina ci exposition bi yëkkati na ay kàddu moom itam di sant ak a gërëm ci liggéey bi waaye wootewaat ak bennoo ci mu muriti rawatina ñi nga xam ne nii seeni maam ñoo àndoon di liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim fi ci Thiène Jolof. di dalal jàmm fii ci pàkk bu tedd pàkk bu barkeel. pakk bu lamboo ay ngëneel lu yaatu yoo xam ne mënu su koo tudd am xel tam mënu koo takk ndax pakk boo xam ne ka fi nekkoon defar ak defare rekk la fi nekke woon ba tax ki jàppoon ne moo sababu indi ko fi dem ba xam ne kii kat su nekkee fii ñëppay maase baax kon defare fi la fi doon defe am tam ñu ko yàlla baaxe woon boole ko ak ñoom ñooñu ñëpp nag seeni njaboot ñoo fi nekk di sàmm doona loolu ba tey jii eh, li ñu sama bokki ndaam yi wax sëriñ Mbacke Madina génnut ndaam ndax woy juróom loolu sant woy juróom jarbaatu maam Thierno Lenga la soxna see ko jur kon day mel ni génnut Thierno génn Cheikh Abdourahmane Lo génn sëñ Mor Absa kon suñ fi dajee di weesal loola di ko fàttali dañu bëgg nit ñi bàyyi xel ne ku la gëni bokk moo la gën ku la moo la gën Seexul Xadim dafa gënoon gëni bokk ak njabootam mel noona Sëriñ Mbàkke Madina nag amoon ci cër booba bu yaatoo yaatu ndax mënoo tudd kenn ku baax ku wér te xamoo la ko booleeg moom kon su njaboot gi dajee di dundal loola ba ba lii bokk ci tey eh, yoon ñu ko def ñëpp ngi leen ñaanal xasiida gi nag mel na ni yeesaat na bis ni ko tey ndax ndegam fii la ko sëriñ bi bindee woon fii la waxee woon wax juróoy ja sëti ñoo nga daje taxaw di ko yeesal ak wane kon jaadu na ci murit bu ne mu jéem koo mokkal ndax xam ne kat garante adduna ak alaxira ci ab jullit ki ko wax war koo wax te wóor ñu ne moo ko wax kon jàpp naa ne kon kurib moytu war nga ko jéem a mokkal boo ko mënta mokkal nga yor ko di ko xool bu fekkee jàng wees na ci yow ci jàpp nga ko waaye ñu xam ne kon war nañ koo mokkal baax ndax itam suñ doona la yéen ñii ko yor dañ leen koo sàmmloo waaye suñ doona la ñun murid yëpp rawet na ñu dëkk fii ndax lu sëriñ bi wax ne ku ko gis kon yéen ñi ko sàmm ba mu nëgëni muy dund nal nam naloon na ko sëñ bi binde woon jàpp naa ne murid yëpp leen weral ngërëm kon waa kër sëñ Mbàkke Madina woowuñ leen ci seen bés dañ leen a woo ci lu ngeen bokk am ci dono ngeen di ko sàmm ndax kat diggante euh, set ak huit ba deux mille vingt quatre ku ko sàmmul mbind te dugaloo ko ci machine jumtukaay wax dëgg yàlla jàmbar ngeen ñooñu nag kon buñ leen woo ci lii dañoo bëgg jëf jooju sëriñ bi jëfoon fii nit ñi gën koo xam gën koo xàmmee waaye sëriñ bi ñu fi daje woon ci moom ñëpp benn lañ defoon seen bopp kon ñun ñu fi nekk itam nag nañuy jéem ci lu ñuy dànnale ndax loolu mooy sunu sag murit kenn ko am muy sëriñ Tuubaa murit kenn ko am muy sëriñ Tuubaa te ñun sëriñ Tuubaa nu yilif kon war na noo doonale suñu bopp benn di ko rafetal di ko yëkkati ko kon nag ñoo ngi sant képp ku fi teew te ñaan ñu am ci ngërëm daje ci ngërëmul mag ña ndax pàkk bi lañ bëgg mu gën a feeñ gën a leer nu ñi dund li fi ne ba xam ko loolu képp mooy woote bi waaye ku ne xam na ne jamono ji sëriñ seex nekkul ku woote di sonal nit waaye xam na nu fii nag yiwu fi ne bu sañoon ñëpp jariñu ci loolu rek mooy tànk yi kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal suñu borom ñu yàgg koo def te am ci ngërëmul sëriñ bi tax ñu di ko def gannaaw loolu ci lañu amal nemmeeku bu yaatu ci exposition bi wan ko ñi nga xam ne ni ñoo leen ko tudde ak délégation ba fa teewoon ak mbokki taalibe yi nga xam ne ni exposition bi nag occasion la ci ñoom ngir ñu mën a xam lenn ci taarixu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci dëkk bu tedd bilee kitaabun fiihi narjuu لنا مولاي غير مولاي naka jëkk nag exposition bi at mu jot ña ko daan amal waaye ren ji ci yokk gi ak yaatal gi tax na ñu dippe woon ko sëriñ Mor Absa Lo ci fàttali nekkoon kenn ci góor yàlla kàngam yi nga xam ne ni ñoo nekkoon ak Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba fii ci Thiène Jolof liggéeyeen fi liggéey bu ràññeeku exposition bi nag benn la ci jëf yi nga xam ne nii mbokki taalibe yi rawatina commission culturelle et communication bi aju ci islaaxu daara yi ni waa kër Serigne Mbacke Madina dundale nanu ko màggalu Thiène Jolof édition 2024 alaislaamula